man je suis un messager. tu es yàlla dafay indi nit koo xamante ne dafay wax nit yi lépp loo xamante ne dafa dëng parce que plus jamono di dox dañuy lëndëmal alxuraan. tu es un messager moo tax moo tax may wax li may wax nii. non man ku yàlla tu es un messager de l'islam léegi islam boobu noonu gis nga tur bi nii cercle bi ko wër mooy wane ne ñëpp ay jullit lañ chrétien juif atte ñëpp ay jullit lañ léegi nag lan moo xew ba Mohamed ñëw ni Jésus ñëw ni Moussa ñëw ni ñi nekk ay atte ñi nekk lii ñi nekk lii moo tax ma ne la ki nga xam ne dafay taxaw di jaamu garab ak ki lal si jaare di julli ñoo yem amuñu benn différence kii jaamu garab ak ki lal si jaare di julli mooy euh, le séeréer bi ñëw ci baobab bi voilà di tuur di tugur moo mu dafa am ay tuur moo kii julli ñoo yem nu ñu yemee amuñ parce que divinité moo tax man la sëñ Tuubaa dafa wax benn wax dafa ne ak durru wa nafaw mina rahmaani mu ne leer bi nga xamante ne dara takku ko mu ne leer boobu moo solu ci jëmm yépp moo nekk ci garab nekk ci suuf nekk ci nit nekk ci lépp léegi nag mu ne loolu nga xamante ne nag mooy jëmm yi feeñ mu ne mina rahmaani ñëpp ay adduwaayu yàlla lañ loolu la wax ñëpp ay adduwaayu yàlla lañ donc ça veut ko quoi ça veut tey tur ak jëmm bokkul ak li nga xamante ni mooy spiritualité donc spiritualité moom mooy l'essence des choses au-delà des noms et des apparences mais pourquoi nga ne yow message nga pourquoi euh, bon moi j'ai connu euh, kilifa diine yi fi suñu yi fi wàcc euh, ñu ne ce sont des messagers de de de Dieu Seydina Limamou Laye euh, on l'appelle d'ailleurs le, le le le messager mm-hmm. mais pourquoi lan moo ñu war a jox preuve du preuve lan mooy mandarga message du preuve en fait yàlla daf lay jox loo xamante ne daf lay wax demal nga wax léegi yow bul lijjante ki lay gëm wala ki la gëmul moom daf la wax loo tey dañoo toll ci situation boo xamante ne Sénégal gis nga ni ñuy saaga way kilifa diine man waxoon nag fii hmm. da gis ñoo xamante ne dañuy def ay live di leen saaga te pourtant kilifa diine yooyu lu bari lu ñu am Sénégal ñoom la kilifa diine yooyu lu bëri li nga xamante ne am nañ ko ci Sénégal en terme de stabilité ñoom la soo jëlee suñu président yi de Senghor à Macky Sall ñoom dañoo ñëw fekk pouvoir religieux boobu noonu ñu sàmm pouvoir religieux boobu léegi loolu nag ànd ak Sénégal ñuy dox ba egg foo xamante ni nag beneen cycle bu bees mooy commencé donc cycle bu bees boobu noonu dafa am keneen ku koy porté kooku nag day ñëw di leeral lépp li nga non nit ki du jàpp moom message la de il a dafay ñëw comme li ma lay wax nii yow mës nga gis kuy politique ñëw di la tracer yu mel nii. voilà moo tax bi ma la man nekk moo tax ma ne man nekkuma si spéculation yooyu noonu. <laughs> nekkuma si spéculation yi ah, noonu. xam dama lay wax ne. li indi li mais mais s'y connaît très bien Thierno Alassane Sall euh, xëy na dafa wanewul cet aspect cette dimension de sa personne mais dafa jàng ba ne ba ne ba ne ah, li may wax du jàng euh, alxuraan man li du jàng man ah. dégguma arabe. déggu arabe non dégguma arabe. Mm-hmm. je comprends pas l'arabe. Mm-hmm. man jàng naa alxuraan effectivement mais lépp loo xamante ni ay firi la affaire j'ai pas appris ça. moo tax man la état yàlla moo ko créé te boo déparé ci kaw fii nii processus bi mu def ba indi état boobu nag donc koy expliqué. jàng na alxuraan. waaw jàng na alxuraan. mais waaw mais li ngay wax ni dañ la ko sol wala loolu nga bëgg a wax. noonu laa ko xamee. da nga jékki rek nga xam li ngay wax ni xam ko. jànguloo ko fekk non jànguma ko. donc état yàlla moo ko créé tubaab créé wu ko. moo tax ma ne ñun bu ñu bëggee génne si suñu situation yi dañuy dem ci niveau scientifique de l' état. mais en tant mhm. la. da ngay ñëw li nga xamante ne tey mi ngi dem di yàqu parce que li ko indi mooy comme li ñuy wax Sénégal boo xoolee dañuy tooñ chrétiens yi ci lu bëri te li ñu leen di tooñ lu ci bëri amul fondement léegi yooyu yëpp nag alxuraan beddiwul kenn ŋàññiwul kenn mais 80 pour cent nañ ko firé dafa des léegi loolu yëpp nag dañ koy rétablir niñ ko firee cest à ni ñu firee alxuraan maanaam ñi ñuy wax yéefar ñi ñuy wax li ñi ñuy wax li suraat yi boo koy liir ni ñu koy firee ak li mu doon dëgg-dëgg.